مسلم السليم محمد بن si الله وعلى اله وصحبه وسلم man la Zakaria Cissé fii si jardin public terrain handball bi ci Tëngéej dañoo daje fii tey jullit ñëpp amul xaj ak seen ñu nekk si tarixa ñu nekkul si tarixa ngir wane sunu naqar ak sunu métit li nga xam ne moom nañu teg ngaañ na ko sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kooku jullit ñëpp ñoom ñoo ko kon loolu moo tax lii nga xam ne moo am tey nga xam ne doo mën a ràññaat ñii fii nañu bokk ñële fa nañu bokk loolu moo war a am toujours loolu moo war a dimbali toujours parce que l'islam li mu bëgg si ñun li mu sant en tant ay jullit mooy ñu ànd ñu nekk benn xoolal julli rek day joxe exemple loolu bu nekkee ci jàkk murid dafay nekk tijaan dafay nekk layan dafay nekk ibaadu dafay nekk xaadir dafay nekk keneen dafay nekk mais benn imam la ñuy jël kenn si ñooñu jiital ko kooku kenn du def dara avant def lu mu def moom la ñuy topp loolu l'islam daf ñuy jàngal exemple si ni noonu mu nekkee si biir jàpp ji espace bu ndaw boobu suñu dund yëpp si noonu la war a demee dañoo war a organiser wu dañoo war a ànd dañoo war a nekk benn mais du benn mbir boo xam ne day am lu ñu naqari lu ñu metti rek ñu taxaw si benn jamono ñu taxaw si benn place wax ni lii metti nañ bu jeexee mu jeex bu ëllëgee ñu tasaaroowaat ñuy julli duñu jullee ndoo su koor ñëwee duñu woorandoo bu baree bari duñu ko defandoo ndax ku nekk day réewu dellu ci kuréel ba nga xam ne moom la bokk loolu du lislaam loolu du diine tey ñi nga xam ne ñooy xeer lislaam bokk ni leen jox doole leen jox force mooy ànd bi ñu ànd nangu bi ñu nangu ni ñoom ñëpp am nañ benn ennemi te ñoom ñoo bokk ennemi boobu mooy lislaam seen idéologie lu mu wute yëpp dinañ nangu teg différence yooyu waxtu woo xam ne lislaam lañu war a jaamaar kon ñoom xam nañ lan mooy stratégie xeex bi mooy ànd mooy mais jullit ñi fii ànd ñu benn lool du am am benn njiit boo xam ne day wax def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi toog leen ñu toog jóg leen ñu jóg lu mu leen sant ñu def ko mu leen mu bàyyi mu tere mu bàyyi ko mu doon kilifa comme ni ma ko waxee ci imaam bi nga xam ne day doon kilifa ca loola kon l'islam loolu la santaane loolu nañuy woo Sénégalais yi loolu nañuy woo adduna bi yëpp ndax loolu su lislaam jullit ñi am na benn moment boo xam ne dañoo tuuti bari wuñu mais seen ànd seen booloo seen joxante loxo moo taxoon bu ñu leen tooñee yàlla day ànd ak ñoom wàccee ay malaaka ñu dimbali leen jullit ñi mësuñoo jaamaarloo ak yéefee yi ëppale mësu kon nag mille mais jullit yi ñoo gañe yeneen xeex ak yeneen xeex ak yu baree bari lu ko war a waraloon mooy ànd am benn njiit nangul ko te loolu fi ak amul rek l'islam dafay nekk loo xam ne day tasaaroo day disperté te yàlla wax na ko ci alquran wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu yéen ñëpp ngeen jàpp buumu yàlla bi moom mooy lislaam mooy alquran bu leen taxalikoo parce que taxali boobu li muy jur mooy échec moo tax mu ne woon wala tanazamu fa tafshalu wa tazhabu riihukum bu leen xëccoo parce que xëccoo li muy indi mooy échec su ngeen échecee seen kattan day dem tey booy xool jullit ñi presque bu ñu dajale woon ñi gëm ci àdduna ak ñi gëmul yëpp ñoom ñoo ëpp jullit ñi mais bu leen tasaare woon nasaraan yi ne le yahud yi ne le ñi gëmul dara ne le jullit ñi ne le ëpp ñëpp ñu gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais lu tax yeneen force yi di leen mën di leen dóor parce que ñàkk ànd bi moom moo war kon ànd bi rek mooy doole ànd bi rek mooy force ànd bi rek mooy tax suñuy noon ragal ñu mais bu loolu dañuy mel comme ni ko sallallahu alayhi wasallam waxee rek comme waame yoo xamante ni amul benn njëriñ lu ñëw rek da koy wóor wala da koy